wute péage beeg commande publique beeg ndorteel TER bi jëruñ gi taxaw na nag ci wàllub euh, TER googee euh, am nañu yéene mu door fileeg fanweeri fan ak euh, benn ci weeru décembre 2021 lu aju ci njëgu péage bi la mu xam ne bu kenn xalaatagum wàññeeku am ci njëg mi fileeg juróomi at adduna yi tamit ci wàllu charrette yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci jamono ji boroom charrette yi contrôle technique yañ leen sas lum ci xalaat moom Mansour Faye addu ci biir yéenekaay bi di fu Quotidien mooy gan gi tey. Euh, Sud Quotidien. Euh, Sud Quotidien Seydina Ba assemblée nationale war a addu tey ci ëllëgu professeur Issa Ta Issa Sall euh, bu PUR gannaaw bu mu jógee ca PUR samp partem bu bees ba tax na daañ ko xañ ndombol tànkam député dootul doon honorable député foofee ci assemblée nationale da ci fal moom ay mbiram sotteegul jëm ci ëllëgëm foofee ca pencum ndaw réew mi mu ngi ci Sud Populi. waxtu di eh, xëy eh, dikkat eh, ci ay jegeñaale Ousmane Sonko gannaaw fitna ga ca peggu maanaam kërub Sonko foofee ca cité kër góor gi chef protocole bu Sonko moom la ñu wolu tey ca digg Jibi Gueye Ndiaye daañ ko laaj ci lu xewoon ci fitna googe juróom-ñetti fan weeru février gi ñu weesu mu ngi ci Vox Populi Tribune Tribune ñun ci Issa Sall ne daanaka doonoon na ministre conseiller conseiller eh, bu teg eh, ndombal tànk ga mu am ci assemblée nationale don fa député eh, te tamit ndombal tànk googee dañ ko nangu jox ko keneen mu ngi ci turbine Euh, direct news. Euh, direct news Seydina Omar Ba ci wàllu politique Sénégal politique googee nag géew gi daanaka am gan gu bees euh, Déthié Fall mi samp partem yàggut ba tax na sénégalais yi wuy dinañu Déthié Fall ci doxalinam mu ngi ci direct news. l'évidence l'évidence meeting ca Podor njiitu réew Macky Sall ak ay ñoñam fas yéene tamit wane seen doole foofee ca département bu Walal de yéen a bi moo ñu ko yëggee ci xatam bu njëkk APR ak jafe-jafe gamu am ca. Kébémer ndaw ña jot nañu métitlu doxalinu responsable ya fa mu ngi ci l'évidence l'observateur ñàkkum kaaraange ca jaww be yéen kaabi xëy ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk bokk na ci fitna ga fa woon fan yàlla ñu weesu yéen kaabi dikkat na ci koomu réew mu Sénégal li ci njiit réew Macky Sall ci jamono ci war a feggoog ay homme d'affaires u Sénégal moom la l'observateur xëy duñu leeralal critique critique lu waaju ci science plénière xamante ne dañ ko amal ni ki àjjuma euh, jëm ci dàqum élection locale yi Antoine Félix euh, Diome euh, mission lañ ko sas ci jamono ji projet de loi googee nag daañu xool ndax dañu dàq élection locale yi ba jëmi jamono ñi ay conseillers départementaux ak municipaux ndax daañu yeggale seen mandaam déet lépp lu ci aju ñu ngi ci xaar ci leeral Antoine Félix Diome ci assemblée nationale. li quotidien li quotidien ne li xew ci train express régional ñu ngi xaar itam tamit euh, ndorteelam daanaka euh, terrain ba ñu ngi koy xaar mu yegg si yegg waaye nag ñu ngi xaar tamit mu tàmbalee daw fi nekk njeextalu 2021 mooy euh, date bu bees boo xamante ne kilifa yi jëlaat nañ ko ci l'enquête enquête Seydina Omar Ba mu ñu xam rek couplage yu élection yi dina doon lu jafe lool boole élection locale ak élection législative euh, naka la ko géopolitique bi euh, gisee Déthié Faye moom joxe na ci xalaatam ak euh, Cheikh Sarr bokk ci majorité bi seen kàddu ci enquête. le quotidien le quotidien xëy seq waxtaan bu yaatu ak yor kàdduk présidence de la république Seydou Gueye lay wuyoo àdduna yi tamit xam le ne képp koo xamante ne daanaka taxaw nga tembe taal mbir yi ba mu ne jëppét nga bëgg a doon sapeur pompier loolee xel mënu ko nangu àdduna yi tamit ci euh, fichier électoral bi nga xamante ne ca la ku jëg politique bi euh, di jëfandu saay su ne mu ngi ci le quotidien euh, ci wàll seentu weer wi kuréel ga koy war a saytu ci kilifteefu Omar Diène ma fa wutu yan Thiam mu ngi ci yéen kaay bi di le quotidien réew mi réew mi yéen kaay mu ngi ñu dégtal màgget yi troisième âge lañ leen duppee ñi am juróom benn fukk ak juróom ñu bëri ci ñoom nag ñii daanaka coronavirus bi mu ngi leen di sànq ña ca des tamit ñu ñuy jëfandikoo drogue bi moom moo leen di sànq say su ne doon gëstu boo xamante ne ab kuréel def na ko mu ñeel àddina gi màgget ñooñee di jëfandikoo drogue leneen itamit ci xibaar ñi nga xam ñooy dund ak feebaru roño lim nga takku na lu toll ci ñaari junni jàpp ñeenti junni cas yoo xamante ne Sénégal dina ko am at mu jot mu ngi ci réew mi euh, quotidien le soleil euh, professeur Didier Raoult euh, bu France doon ganap Sénégal rafetlu na ni Sénégal saytoo xeexu mbas mi di coronavirus rafetlu tamit politique ba ca njiitu réew Macky doxal sargal nañ ko démb ca ba moom professeur Didier les échos les échos xëy duñu dégtal rapport annuel jëm ci département des état américain euh, la gis moo ne daal euh, Sénégal am na jalgati yamu def euh, bokk na ci salfañe ak ak yelleefu doomi aadama ak itamit noot kuréel yi nga xamante ne ñoo jiite wala boog ñoo yëngu ci mbirum góor jigéen bokk na ci tamit fexe ba noot yi tamit ñi nga xamante ne ñoo ci kaso yi anam yal na leen di di sayto rafetul corruption guerre gañu ne meeku ci ay ñenn ci fonctionnaire yi yéen a kii les échos xëy ko leer leeralal Aliou Cissé ak équipe nationale gàcceel nañu euh, Sénégal gannaaw li xew démb ci diggante Sénégal ak Eswatini ndam demul ndam euh, dikkul. Euh, Source A Source A Seydina Omar Ba ma nga ca Touba ñaar ci ay responsable Pastef yañ fa teg loxo ña ngay wax nañ leen tege loxo maam daam loo ne may ñu ko sax mu sol ay yére yu baax daanaka dañ ko ne nuus jàpp daal di ko indi fii ci Ndakaaru Bada Ndiaye tamit ma ngay wax na mu dundee mbir ya Aliou bi ñu ne làmp euh, laaj na ndax ko mënul bawoo lu yàqu yow euh, ba léegi mënagul sigil équipe euh, nationale. record record Sénégal Eswatini ndam demul ndam dikul kenn ku ne dugal sa morom benn bi as tuut nag Sénégal nermeelu ci googu lépp jongante. stade stade ne gaynde yi euh, daanaka rëcc nañu euh, ci la leen naroon a ci googule match ndax euh, Eswatini ma nga woon ci tànk gagné Sénégal Cheikh Sidi gis ne am na jafe-jafe ci projet sportif bu Sénégal Ferdinand Coly ne am na ci tamit jaaxle lool kii di Sadio Mané ne jafe-jafe am na ci bile équipe. sunu lamb équipe Ipo Ngari acca acca dikkat na ci lamb ji combat bi war am ci diggante seen ak la. Lac de Guiers 2 ni ki ñeenti fan ci weeru février Ipo Ngari la mu gis moo ne daal Eumeu Sène moo ci euh, favori